عليك يا مختار بجادي بكل ساعة على الرشاد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo leen nii te di leen ziar tey amaan mbégte fii seen télévision Xasaay TV fas yéene indil émission bi ñuy wax dénkaane sëriñ bi dénkaane sëriñ bi nag jotaay la boo xam ne waxtu ne dañ leen ko toppal ci tàmbali leen ko ci ma ndénkaan yi nga xam ne sëriñ bi defoon na ko ak mag ñi mu àndaloon te bu nee mag ñi ñun génnuñu ci yii da koo dénkoon mbooloo mi doon àndal yii mu koy dénk kenn ci mag ñi mu àndaloon yii ay bataaxal yoo xam ne bindoon na ko mag ñi mu jamonoon teel te lépp jëm ci taalibe yi lépp jëm ci mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi kon ay ndénkaan yu am solo la ndax ndénkaani sëriñ bi lépp njariñ la lépp tawfiix la xëy comme na lakum fatar boxoo dunya wa uxra maa xaw mi xaf la wul ngal la yéen jël leen sama laabire yi sama ndénkaane yi kon bu ngeen ko jëlee di ngeen tonn wu àdduna di ngeen tonn wu àllaaxira kon mbokki taalibe yi seen émission bi ñuy wax ndénkaane sëriñ bi bis bu ne lay am fii seen télévision Wassare TV bu ko kenn wuute wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bikul